bismillahi arrahmaani irrahim bokk yi ñu ñëw ak yéen ci suñu jotaay bu njëkk ci jotaay yi tafsirul quraanil karim yi ñu ànd ak yéen ci weeru koor wi atum 2020 ñu war a tàmbalee suñu tafsir ci suratul taxana wala suratul mumtaxina ñaar yëpp dañ koy wax almumtaxana wala almumtaxina mooy saaru juróom benn fukk ci niñ toftalee kaamil bi waaye bu dee ci nim wàcce moom mi ngi wàcc ginnaaw bi suuratul ahzab wàccee ba noppi ba mu wàccee ba noppi suuratul nisaa i moo wàcc topp ca saar la woo xam ne madine la wàcc aaya yëpp madine la wàcc liw ay ay itam fukki aaya ak ñett la am ñu ko jàppe fukki aaya ak ñeent moom saar wi tur woowu ñu wax léegi moom la siiwe doonte nag boroom xam-xam yi dañuy tàqale diggante almumtaxana ak almumtaxina ndax bu dee ñi ko tudde na bi fatxil xaa'i dañu na saar wi kat melow ak jigéen la mooy jigéen ja nga xam ne moom lañu doon nattu jigéen ñi nattu nattu ba tax saar wi wàcc moom lañ tudde saar wi moo tax ñuy wax almumtahana am ñeneen nag ñoo xam ne dañuy jàng almumtahina bi kasril xaa'i ngir ne kat loolu mooy melaw saar wi maanaam saar wi daal moom moo nekk saar wi def imtihaan imtihaan mooy examen kon fii tàqale bi nekk rek moom mooy saar wi daa am ñu tudde kañ doon imtihaan mooy al mumtahana mooy kañ doon examen kañ doon nattu am ñu ko tudde al mumtahina te mooy kii imtihaane te mooy ki nattoo kon ñaar yëpp mënees na koo wax moom saar wi wuññi ne lu baree bari maanaam feeñal lu baree bari ci caay-caay yi nga xam ne naafeq yi doon nañ ko def kon am na lu baree bari lum nuroog saar wi ko jiitu te mooy suuratul xashri ba sax booy xool day mel ne saar wi dafa ñëw di mottali wax ja yàlla doon wax ci suuratul xashri ndax am na aay yu bari yoo xam ne dafay ñëw di leeral mbirum naafeq yi ba mel ne yàlla doon waxee ci suutul xasri moom la saar wi ñëwaat di ko gën a feddili di ko gën a leeral soxna si nga xam ne eh, moom ci mbiram la saar wi wàcc mi ngi tuddoon ummu kalthum bintu uqbata ibnu abi muayt soo xoolee yàlla mi ngi wax ci biir saar wi naan famtaxinuhunna allahu aalam bi imaanihinna moom mooy soxnas abdurahman ibnu awf am nañ sax doom ñu tudd ibrahim ibnu abdurahman ibnu awf danañ ko wooye ba tey suuratul imtixaan muy saaru examen di ko wooye itam suuratul mawadda te muy saaru cofeel moom saar wi bokk na ci ñetti saar yi nga xam ne dafa tàmbalee ak ya ayuha alladina amanu yàlla tàmbalee ko kon di woo jullit ñi ngir am lum leeni tere te loolu moom mooy ñuy xaritoog noonu yàlla yi waaye itam wax leen li tax mu leeni tere loolu te mooy noonu yàlla yooyu dañuy fexeel jullit ñi ay pexe yu bon ëmbal leen ak mbañeel ak coxar ci seen xol yi loolu moo tax mu ne bu leen xaritoo ak ñooñu kon saar la woo xam ne tere na jullit ñi ñun xaritoog noonu yàlla yi waaye tam woo na leen ci ñu roy yonent yàlla ibrahim alayhi salaam moom mi nga xam ne dafa daggoon relation ak baayam ginnaaw bi mu xamee ne baayam dafa wedd yàlla dafa noonoo yàlla saar wi itam bégal na jullit ñi ci wane ne kat yàlla dina leen boolewaat ngeen nekk benn yéen ñi gëm mu ngi wax te biir naan asa allahu an yajala baynakum wa bayna alladina aadaytum minhum mawadda ginnaaw ba mu yombalalee jullit ñi itam ne leen yéefar yi nga xam ne seeni mbokk lañu te xeexuñoo ak yéen yéene wuñ leen lu bon ñoom ayut ngeen di maslaa ñoom waaye yéefar yi na yàlla tere ngeen am laat teg ñoom mooy yéefar yi nga xam ne dañuy xeex ak yéen dañ leen fexeel dañ leen ambal ambal ak ak mbañeel yàlla yit digal jigéenu jullit mi ci biir saar bi ne bu yonte bi sansam di jaayante ak ñoom ñoom jigéen nañu jaayante comme ni góor ñi jaayante mooy la ñuy sàttante ak góor ña ci lislaam lañ leen digal ak lañ tere moom lañuy digal jigéen ña moom lañuy tere eh, jigéen ña itam dañuy tere ji góor ña moom lañuy tere eh, jigéen ña moom saaru wi itam andi lu baree bare ci xeetu yar yoo xam ne da koy jëmbat ci xolu jullit ñi ci wàllum pas-pas bu mucc ayib waaye itam def leen ñuy volonté di jaay seen lépp ngir jëm yàlla te jiital yàlla ci képp keneen ku mën a doon kon saar la woo xam ne saar la wu am am solo te képp koo xam ne topp nga tafsiru saar ba mu jeex di gis ne saar la wu ama am solo wu dajale ay ngëneel yu bare saar wi yàlla mi ngi ko tàmbalee ci ya ayuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen laa tattaxizu aduwi wa aduwakum awliyaa yéen ñi nga xam ne gëm ngeen bu leen jàppe samab noon ak seeni noon ñuy ay xarit awliyaa mooy asdiqaa ay xarit boroom xam-xami tafsir nee ñu li tax laaya yi wàcc ay yi tàmbali saar li tax mu wàcc mooy mi ngi wàcc ci mbirum ku ñuy wax xaatib ibnu abi baltaa te loolu xadis la boo xam ne al imam Buxaari ak muslim ak ahmad ak abu daawuda ak at tirmisi ak an nasaayi ak ibnu xibban ak ñeneen génne nañ ko jële ko ci ali ibn abi talib mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ak zubair ak miqdaat ne ñu dem leen ba àgg fa ñuy wax rawdatu xaax foofu place bu nekk diggante màkk ak madina bu fa àggee da ngeen fa fekk jenn seen soxna mu yore ab leetar su ko fekkee na ngeen nangu leetar ba ngeen andil ma ko te su bañee sax na ngeen xeex ak moom Aliou nee na bañ ñëwee ci place ba mu ñu wax ñu fekk fa seen soxna ñu ne ko génneel téere bi nga yor génneel leetar bi nga yor mu ñu leen man day yoruma dara ñu ne ko génnee ko wala boog ñu jëflanteeg yow mu doog koo génne ci biir nafaka euh, nafa gi mu yoroon jël leetar ba andil ko yonente bi sallallahu alayhi fekk ca biir leetar ba ku ñu wax xaatib ibn abi baltaa moo ko bindoon ay nit ci mushrikuun yi nekkoon màkka maanaam bokkaalekat yàlla yi nekkoon màkka te moom ab jullit la lam nañ ci doon wax ca leetar ba moom mooy dañ doon xibaar yenn secret yonente bi sallallahu alayhi ndax fekk na boobu yonente bi sallallahu doon waxtaane delluwaat màkka am nañu ne ca sulhu xudaybiya la woon am ñu ne it ca fat màkkate la woon waaye lu daal xaatim moom lam doon wax ci leetar ba ay secret yoo xam ne yonent bi sansan moo ko doon wax ak jullit ñi moom xaatim ci jullit la bokkoon mu dégg loolu dem xebaar ko bind ab leetar ngir xibaar ko mbokkam ya nekk màkka te nekk ay mushrikuun bi nga xamee ne nag leetar bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent wax woo xaatib ba mu ñëw mu ko xaatib luy li lu tax nga def lii xaatib na ko yaa rasulallah bul yàkkam ci de ne ko man day damaa nekk waajoo xam ne sama doole bariwut sama loxo jot sama ginnaaw dama am ay mbokk yoo xam ne ci waa Xurayshin lañ bokk mooy ci euh, mushriku Màkka lañ bokk euh, daal ma taxawu daal ma jàppale euh, daal ma aar itam di aar sama njaboot te am na ay alal yu ma bàyyi ca Màkka bi ma gàddaayee bàyyi na alal ca Màkka yoo xam ne ñoom ñoom ma koy aaral ñoom ma koy sàmmal ma ragal nag bu ma leen sàgganee ba musiba dal leen sama alal yooyee ak sama njaboot yooye ma ñàkk leen moo tax maa naan defal njëkk ak teraanga ji ngir ñu continuer di ma aar ne ko nag waaye defuma lool ngir wedd yàlla defuma ko itam ngir génnaat ci lislaam ba loolu amee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal nangu ngàntam daal di koy jéggal léegi sax ba ma waxee ba àggal Omar ibnu Xattaab nee na nee na bi sallallahu alayhi wasallam bi jox ma ndigal ma dagg baatam ndax kii naa feq la yonent bi sasam daan ne ko Omar kii ngay waxal day teewe ne xara badar ne ko waaw ndax am nga lu la leer ci ne yàlla waxut wa badar na leen def leen lu la neex jégg naa seen bàkkal ak lu ngeen mën a def ba loolu amee nag ci la yàlla wàccee eh, laaya yii kon nee ñu jamono ji nga xam ne ci la yonent bi doon waajal ngir dem omra ci sulh Hudaybiya ci la loolu xewoon am na it ñu ne qissa bii nii mi ngi xewoon ci fatxu Makka kon yàlla wax gum wax ne la tattaxisu aduwwi bu leen jàppee samab noon foofu mi ngi ci jublu képp koo xam noonu lislaam nga rek waaye nag yéefari Makka yi moom ñoo ci jiitu yéefari Makka yi nga xam ne ñoom la Xaatib ibn Abi Baltaa moom yónnee woon leetar ba ñoom ñoo ci jiitu ñoom ñoo noonu yàlla yi jiitu te noon yi Eh, lim jublu ci noonoo gi nag mooy noonoog diine mooy yéefar yooyu nga xam ne dañuy xir lool ci di lor jullit ñi waaye di leen gàllankoor seen wàllu lislaam yàlla ne yéen jullit ñi yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ma gëm yonante bi sallallahu alayhi wasallam gëm gu dëggu moytandiku leen di jaxasoog yéefar yi moytandiku leen di leen jàppe ay waaye ak i xarit ak di diisoog ñoom déedéet yéen jihaad leen ak ñoom dagg leen seen relation ak ñoom ndax ñooñu gëmuñu te dañ leen di fexeel danañ seetlu na yàlla bi muy teree lim njëkk a tudd mooy ak noonoom moom moom yàlla ci yéefar yi ndax adu wii la njëkk a wax loola la tax mu wax ko moom mooy ndax noonoo gi yàlla gi yéefar noonoo yàlla moom moo gën a bon te moo gën a yées te moo gën a tar ndax ñoom kat yàlla mi leen bind lañ ne fi kup bàyyi ko fi dem du jaamu ñeneen yeneeni yàlla ak yeneen xëram yu dul yàlla sant itam beneen buur pour yàlla te yàlla moom moo leen wërsëgal di leen dundal di leen faat mu yónni ci ñoom ay yonent ñu weddi ko di lor yonente yooyu ak i baam loolu moo tax noonu googu moo gën a tar moo tax yàlla njëkk ko tudd ne laa tattaxisu adu wii bu leen jàppee sama samab noon waa doo ko wax waa adu ak seeni noon awliyaa ay xarit loolu li koy gën a firndeel mooy loo xam ne ñëw na ci alxadis alxursi xadis boo xam ne yonent sax moo ko wax jële ko ci yàlla mu yàlla nee na man day maak jinne yi ak nit ñi suñu problème moom rey na ndax man dama bind nit ak jinne ba noppi am ci ñoom ñuy jaamu keneen ku dul man may wërsëgal nit yi ak jinne yi ba noppi ñu sant keneen ku dul man sama yiw fu ma toll mu ngi dotti ko jëm ci ñoom nit ak jinne ba noppi itam ñoom seenu ay di yéeg jëm si ci man man fu ma toll maa ngi leen bëgg-bëgglu di leen jox ay xeewal waaye ñoom ñu may bañ di ma moy kon loolu lépp day wane na kon kuy def loolu sag noonoog yàlla moo gën a tar bi nga xamee ne kon nee na laa tattaxisu aduwi wa aduwakum awliyaa mu teg ci tulquuna ilayhim bil mawadda bu leen jàppe ay xarit sama noon ak seeni noon ay xarit buñ leen jàppe ay xarit ba noppi ngeen leen i bëgg-bëgglu tulquuna ilayhim bil mawadda mooy ngeen leen i bëgg-bëgglu di sàkku ak cofeel ci ñoom baa ngeen def ay mbir ngeen dab seen bànneex ngir ñu bëgg leen ngeen méngoo seeni mbir lool neen ko moytandiku neen ko moytandiku ndax waqad kafaru bi ma jaakum min al xaq ñoom kat dañoo weddi li nga xam ne moom la leen yonent bi sallallahu andil muy dëgg gu jóge ca yàlla muy dëgg gu jóge ca yàlla euh, mu teg ci euh, yuxriju yuxrijuna rasula wa iyaakum ñoom bokk na li tax ma leen tere ngeen noonu ak ñoom mooy ñoom fuñ toll ñu ngi def ay fexe ngir génnee yonent bi sallallahu alayhi makka waaye itam génnee ko sax madina ngir mu tumuranke te du moom yonent bi rek waaye wa iyaakum ak yéen itam fuñ toll ñu ngi leen di fexeel ngir bëgg leen a génnee dëkk yi ngeen tumuranke ngeen alko ngeen tumuranke ngeen alko kon loolu mooy àll bi tax mu tere leen ñuy xaritoog ñi nga xam dañoo weddi dañoo wedd weddi yàlla ginnaaw loolu mu ne an tuminu billahi rabbikum bu leen di xaritoog yéefar yooyu ginnaaw bi ngeen gëmee yàlla ba noppi an tuminu billahi ginnaaw bi ngeen gëmee yàlla rabbikum mi nga xam ne mooy seen boroom kon rëkk waaye bu leen gëm yàlla ba noppi di ko wéetal di nag xaritoog ay yéefar yoo xam dañoo wedd yàlla dañoo contre yàlla te lañ leen di fexeel ngir lor leen ndax loolu dafay wuute wuuteeg sellal seen diggante seen boroom dafay wuuteeg pas-pas bu set wecc bu wér dafay wuuteeg moom euh, kon mu ne in kuntum xaratum jihaadan fi jihaadan fi sabili daal ne li tax ma leen teral lii nag li tax ma leen teral lii ginnaaw benn gëmee yàlla mooy bu fekkente ne la ngeen di wax dëgg la ci yéen te mooy ne da ngeen a gàddaaye màkka ñëw diina ngir man yàlla in kuntum moo bu fekkee nekk ngeen xaratum dangeen a génn jihaadan ngir jihaad fii sabili ngir sama yoon man yàlla wabtigaa mardaati ak sàkku sama ngërëm bu fekkente ne loolu dëgg la ci yéen waaye waaye kon bu di xaritoog yéefar yooyu bu di Eh, seq ak ñoom sax maslaa ngir di sànq seen diine ngir di sànq eh, seen diine ba ma xewle ba noppi nag mu yee leen ci ne képp koo xam ne tam defut lii ma wax xanaa di ko nëbbu na xam na man xam naa lépp moo tax mu ne tusirruuna ilayhim bil mawadda yéen a ngi leen di ëmbal ak ak cofeel tusirruuna ilayhim yéen a ngi leen di ëmbal bil mawadda ci cofeel di bind ay leetar di leen wax lu leen di di leen wax yenn secret yi di leen wax xibaar jullit ñi di ko nëbb ngir sopp guñ gu leen sopp ngir bëgg gu leen bëgg te wa ana alamu bi ma axfaytum wa ana alamu bi ma axfaytum man yàlla xam naa xam naa li ngeen nëbb kon xam leen ne man dara mënumaa ëmp kon li ngeen di deexante ak di ko bind ci suuf di ko xabaar seen mbokki seen mbokk nekk ca bokk ca yéefar lu ngeen wax rek ak lu ngeen ko nëbb man yàlla xam naak te surona ilayhim bil mawadda yeneen nëbbal ak cofeel ci suuf wa ana alam bi ma axfaytum man xam te man xam naa li ngeen nëbbu wa ma ak li ngeen di feeñal man yàlla lépp laa xam mu ne nag wa man yafaalhu minkum képp ku def loolu ci yéen képp ku def loolu ci yéen mooy ku def mbëggeel googu képp kuy ëmb ak mbëggeel ci yéefar yi di ko nëbb mbaa nga feeñal faqad dalla sawa assabil na xam ne wàcc na yoon wa na xam ne moy na yoon wu jub wa na xam ne may na yoon wu baax wa wàcc na yoonu siraatal mustaqim mu teg ci in yasqafuukum yakunu lakum aadaa ñoom day bu ngeen leen di bu bu ngeen leen di maanaam ñoom buñ leen jekkoo yes xafoo ko mooy buñ leen jok jekkoo yakunu lakum aadaa dañuy nekk seeni noon saa yoo xamee ne seen pexe jooy na ñu jekku leen seeni noon la ñuy doon te su boobaa moom noon bu jekku ab noonam lam koy def ku ne xam na ko kon is xafooku buñ leen jekkoo yakunu lakum aadaa dañuy nekk ay noon wa yabsutu ilaykum aydiyahum ba nopp ñu lor leen mooy ñu jël seeni loxo gàll leen ko mooy ñu lor leen rek ñu wàccee ci yéen ay lor ñu wàccee ci yéen ay lor mooy bu ñu leen jekkoo daal moom du ngeen doy dañ leen di teg xeetu fitna ak xeetu musiba ak xeetu lor bu nekk loolu moo tax ma leen di moytandiku loo ngeen di jaxasoog ñoom mbaa ngeen leen di eh, bëgg-bëgglu Eh, kon wa yabsutu ilaykum aydihum dañ leen tàllal seeni loxo di leen ca lor wa alsinatahum ak seeni làmmiñ itam buñ leen jàkkoo itam danañ leen lor ci seen yaram waaye danañ yàq seeni der fu nekk itam ci seen làmmiñ ci seen làmmiñ eh, kon wa alsinatahum bis suu ci ay ñaawteef dañ leen lor ci seen loxo ak seeni làmmiñ ci ay ci ay ñaawteef ba noppi wa waddu law takfurun dañ naan ngéej ngeen weddi yàlla dañ leen teg ay fitna ci seeni loxo di leen ay fitna ci seeni làmmiñ ngir bëgg ngeen wedd yàlla fekk si leen ñoom ca lañ nekk lool moo tax ma leen di tere ngeen di jaxasook ñoom bi ma xeloo ba noppi nag mu leeral nag lor yoo xam ne mën na leen a fekk ci buñ jaxasook ñooñu mooy bu julli di jaxasoo ak yéefari mu ne lan tanfaakum du leen jariñ mukk arxaamukum seen mbokk yi wala awlaadukum wala seen doom yi yowmal qiyaamati Eh, waaw mu ne seen mbokk yi nga xam ne da ngeen bokk ak ñoom ak seen doom yi ngeen jur sax te gëmuñu yàlla nekk ay yéefar ñooñu mënuñu mënuñu leen a jariñ dara dara dara ci ca ca yowmal qiyaam mënuñu leen dara jariñ dara ci yowmal qiyaam kon képp koo xam ne yaa ngi am mbokk yéefar yëlam leen ba tax nga leen wax ay secret na xam ne itam sa bopp rek ngay lor waaye ñoom mënuñu laa jariñ dara yowmal qiyaam ndax yowmal qiyaamate bu yowmal qiyaamee yafsilu baynakum dañuy tàqale seen digganteek seen mbokk yooyee duñ leen jariñ dara duñ leen jariñ dara ndax bis boobee di yowmal qiyaam bis la boo xam ne mbokk du fa jariñ mbokkam dara li feeg bokkuñu gëm bokkuñu ngëm yàlla mi ngi wax ci alquran naan ci beneen ci beneen fa iza nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma izin yawma izin wala yatasaaluun wax feneen tam ne yawma yafirru almaru min axiih wa ummihi wa abiih wa saahibatihi wa baniih laa yooyu ba ñuy firi saar yam nekk firi woon nañ ko kon eh, wane ne ne kon yawmal qiyaam daal nit dina fa tiit bay daw mbokkam di daw ndayam ak baayam ak soxnaam ak doomam kon eh, mbokkoo du fa jariñ dara mbokkoo du fa jariñ dara lu dul mbokkoo goo xam dafa aju ci diina mbokkoo ci yàlla mbokkoo ci yàlla ñu gis foofu ne tudd na al arxam te mooy mbokk ba noppi tuddaat al awlaat te ay doom te ay doom ci biir mbokk yi lañ bokk waaye li tax mu tudd doom moom mooy ndax nit ki ay doom lay gën a bëgg yàlla wane nag yowmal xiyaam moom seeni mbokk du leen fa jariñ dara seeni doom sax nga xam ne mu ñu gën ak seeni mbokk sax du moo tax mu wax waxaay tam wala awlaadukum kon bu yowmal qiyaamee yafsilu baynakum dañuy tàqale seen diggante ak ñooñu ba ba ba duñ leen njariñ dara bu dee jumhurul qurra ñoom yafsilu baynakum la ñuy jàng bu dee nag aasim moom eh, day jàng yufsalu day fatxo yaagi kasra saat gi eh, wala bokk yafsilu waaw bu dee aasim mooy riwaayatu xafs yafsilu eh, lay jàng bu dee jumhurul qurra ñoom ñooy jàng yuf salu yuf salu la ñuy jàng eh, bu dee Hamza ak kasaa i moom eh, yuf yu fas yu fassilu lay jàng yu fassilu eh, baynakum bu dee ibnu amir moom it day damma yaagi moom fatxa faagi sadda ko jàng yu fassalu Euh, yàlla nag moom waxee la ba noppi nag ma daal tëjee laay yi nag ne xam leen ne kon seen i mbokk ak seen doom du leen njëriñ dara tey ma xam dañ leen tàqale te wallahu yàlla bi ma taamaluuna basir lépp lu gën a def rek mi ngi janoog moom te gis na ko te dara ëmb ko kon yàlla def lépp yàlla mi ngi janoog moom te dara ëmb ko mi ngi koy gis ta bu yowmal xiyaama itam lépp loo xam ni def na ko yàlla dina ko ko dina ko xisaab régler ko euh, fay ko ko itam kon danañ gis ne euh, ñetti laay yi nga xam ne moo jiitu ci saar wi am na ay teggiin yoo xam ne jàngal na ko jullit ñi ak ay orientation bokk na ca yooyu ba ci jiitu mooy laaye ñëw na tere ab jullit muy xaritoog ay yéefar euh, tere na leen ko Euh, te loolu day niroog la mu waxoon ci alquran ci beneen béréb ne yaa ayuha alladina amanu laa tattaxisu bidaatan min dunikum laa yalunakum kom euh, ba tey itam laay yi ñu weesu mu ñetti aay yooyu yërmande yàlla feeñ na ci ci jullit ñi ndax woone leen tur wi gën a màgg mooy yaa ayuha alladina amano te loolu mi ngi leen ko woowee ginnaaw bi ñu tàbbee ci njuumte lu mag njuumte lu nga xam ne mën na mënoon na leen mere ba du leen wooyee sax yaa ayyuhal lazina am yéen ñi nga xam gëm ngeen ndax njumte loolu ñu def waaye njumte biñ def la muy rëy rek teewul yërëm leen ba woowee leen yaa ayyuhal lazina euh, amanu loolu euh, ab tontu la ci mutazila yi nga xam ñoom dañuy wax ne ku mooy yàlla rek gëmatoo yàlla ku mooy yàlla ñàkk nga sa ngëm loolu tontu la ci ñoom ndax ñii muy xaate moom nga xam ne moo def loolu mooy na yàlla waaye tew yàlla bi muy woote yaa na am amanu la waxta ba xaate ma ngi ci biir ak ñeneen eh, laay itam am na ay eh, méthode yu efficace yoo xam ne dafay woote jëme ci ay ngëneel di moytandi ko nit ñi ay caay-caay te loolu moom mooy yàlla bi mu teree ne jullit ñi bu leen di xaritoo ak yéefar yi bu leen di xaritoo ak samay noon ak seeni noon yéen eh, ginnaaw wax ne leen danger yi nekk ci loolu wax leen tam sabab yi tax mu leen koy tere te mooy yéefar yooyu dañoo weddi yàlla dañuy fexeel jullit ñi dañuy mébét di génnee yonente bi di leen génne yéen jullit ñi ngeen ngeen sànku ngir ngeen tumranke ngir ngeen torox xamal leen ne it li tax ma leen koy tere mooy ñoom ñii buñ leen jekkoo du ngeen doy dañ leen lor seeni loxo lor leen ci seeni làmmiñ lor yee gën a metti loolu itam képp ko xam ne ngay woote di jàngale war nga cee jànge ci ne saa wo ay nit boo leen di tere dara xamal leen danger yi nekk te la leen tere ak sabab ya tax eh, nga leen koy tere loolu bokk na ci tax ñu nga gaaw leen convaincre bala leen wax ñu mën koo eh, dégg danañ gis na it aay yi dafa ñëw nekk lu direct ci lu aju ci aqida muy wàllu pas-pas wane yàlla moom kenn du ko bokkaale ak kenn kenn du ko eh, jaxase ak kenn te moom lañu war a jiital ci ay mbokk moom lañu war a jiital ci ay jiital ci ay doom ngëm yàlla moom saa yu teewee danañ teew nañ bàyyi loola te jiital ngëm yàlla loolu moo tax mu ne yowmal qiyaam kat seeni mbokk ak seeni doom dinañ fa jariñ dar ndax dañuy tàqale moo tax la fay jariñ yowmal qiyaam rek moom mooy ngëm yàlla gu ànd ak jaamu ko ak wéetal ko te loolu mi ngi ko wax ginnaaw bi mu teree jullit ñi ginnaaw bi mu tere jullit ñi ñuy méngoo ak di xaritoog noonu yàlla yi te mooy yéefari ba mu noppee nag ci la doog nag ci laay ji topp xissab ibrahima alayhi salaam mi nga xam ne ñam bokkaloon moom bam ne ba xam ne ñi gëmuñu yàlla dafa denc ñoom ba set wecc bàyyi leen féet yàlla kon ñu taxaw fii ba ëllëg ñëw yéen ci laay ji topp